rafetlaan di beex euh, Sen TV 14h maanaam tisbaar mbokk yi dal leen jàmm si biir la jotaayu euh, euh, xibaar ñu koy doo rax nag wàllum njàng mi gàllankoor yi sa nemmeeku ndongo yi nga xam ne démb dañu doon wàcc ci mbedd mi ngir nag sàkku grève bi dakk ba nag takk di dal seen kaw am ñu si jëlee gaañu gaañu loole waa SAEMS maanaam euh, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñoom ci boppam ñu ngi koy ñaawlu di fàttali nguur gi ne kon lii yëpp ni ay coow moom moo ko waral ndax la mu xaati xaatimoon bu fekkoon rek jëfe na ko coow li du yegg fii te nag jàngalekat yi du ñu bàyyi lu dul seen ak sàkkuteef te ñu waxtaanee ko ba noppi kon nag dañu ko saafara jodatay che ñu ngi moo ci sekk waxtaan ak euh, ki nga xam ne rek mooy wàllum communication bu SAEMS Tamsir Bakhoum ñu teewlu ay kàddoom en tant que parti syndical ñu ngi interpeller le président de la République nee leen li xew démb Dakar lu ñaaw la te ñu ngi koy dénoncer ci nam gën a ñaawee te mënuñoo accepter mukk ay xale yu di génn di laajte seen ak ak yelef pour jàng rek ñu jël ay policiers di leen di bombarder ak ay bomb bombes lacrymogènes ba ay xale gaañu ci loolu dañuy jël responsable kenn képp la muy président de République ak nguuram moo tax ñun ñu ngi continuer di wax jàngalekat yi nañ gën a ba lii nga xamante ne ñu ngi koy sumb mu nekk plan d'action yi nga xam ñu ngi ñëw jàngalekat yëpp nañ ko continuer di ko wéyal rawatina nag nañu banque tekki seen loxo loolu yëpp mooy président république ak gouvernement am nañ dem respecté accords yi nga xamante ne signé nañu ko ñun ci fanweeri fan ak ci weeru avril ci te boobu tey nguur gi yeewu ci yàb yi te di wax jàngalekat nañ gën a tàkku bokk ndey bokk bàyyi pour xeex bi kon kon ne di wéy ñu desandi ba tey ci wàllum euh, njàng mi xam ngeen ne kon ay manifestation ci ay ndongo yu wàcc ci mbedd mi sàkku delluwaat ca classe ya loolee ñu ngi koy tàmbalee meeku jamono ji euh, démb nag jàppale na waa ay ndongo yu nekk sa lycée sergent Malamine Camara ñoom ñoo wàcc woon sa mbedd ma takk der yi daal seen kaw am ne nañ sax am na ñaari ci ay ndongo yu sa jële ay euh, gaañu gaañu loole ñoom ndongo yi ñu ngi koy ñaawlu ñu ànd a Cheikh Abdoul Aziz Sow Dabakh Mohamed Diaw sonn école ba mu ibee ba tey mënuñoo toog jàng normal. waaw waaw kay. lii lee di yuuxu wàllu élèves yi leen rek mooy seen càkkutéef professeurs yi dakkal seen grève delluwaat ci classe yi. war a arrêté grève yi ñun dama bëgg jàng pare ci am suñu bag dem suñu yoon. professeurs yoo war ñëw si classe yi di jàngale instant c'est la fin de l'année léegi mu ñëw te en plus examen yi bëri nañu échoué parce que programme yoo ñoo jeexul. élèves yi ne jaaxle lañu def ndax gisatuñu benn jàngalekat def seen kuur nu mu waree mënatuñu ko am not moom xalaatuñu ko. xaaju leçon UG lañ def mayal leçon yu bëri sax def ko ñun ñooy ni deux fois standardisé sax defuñu ko. dëgg la compo baa ngi nii est-ce que ñun ñun sax sax nañ ko def laa yow compo sax nañ ko def. moom a jaaxal. lu ñu mel sax waraloon démb ñu wane seenub naqar wàccoon ci mbedd mi ci loole am ñu ci am gaañu gaañu ñi lee di ko naqarlu gars yi ñoo nekkoon génne élèves yi bon police nag ñoom fi nag avec euh, une vraiment une grande lâcheté di ñu sànni ay bombes lacrymogènes fii ay xale ñoo fi nekk am na sax ay blessé am na ñu fi crise ñàkk def cours moo tax ñu dajaloo itam ci kanamu école bile takk der yi bàyyi leen xel jaajëf Abdoul Aziz Sow baax sa Linguère foofu te ndongo yi dañoo rek dakkal seen am njàng tey ji euh, sa collège d'enseignement moyen ba dañoo wàcc mbedd ma ba noppi dem fekk ci seen yeneen seen i morom ay ndongo nekk seen l'école ñu daal di leen génne ne nag ñetti fan du ñu delluwaat seen école yi lu dul kon rek nguur gi dafa waxtaan ak jàngalekat yi ba ak saafaram ci grève bi taw dakk Ndeye Astou Ndiaye yor seen kàddu ñu teewlu ko Mass Ndiaye. aujourd'hui nag suñu grève bi lenn kese moo ko waral ñun woote wuñ violence woote wuñ violence woote wuñ dara grève bi am entre gouvernement bi ak professeur lañ bëgg mu dakk ndax ñun dañoo bëgg a jàng suñu yeewoo cinq heures du yàq suñuy nelaw defaru dem école jàng huit heures neuf ñu ñu dem leen ñibbi loolu duñu jàng loolu lañu pour comprendre pare ñi si nekk classe d'examen troisième terminale lu grève métti métti fin ñun dañoo war a def examen bu ñu ñoo comprendre kon nag chaque jour bu ñu xëyee ñëw ñu ne ñu ñibbi leen jàmm loolu lañ mën a comprendre pare guñ nag pour arrêter fii gouvernement bi trouvé solution entre moom professeur ñun jàng lañ bëgg jàng kese lañu bëgg leneen lu soxal bi la jot ay xibaar umpul kenn kon juróom-ñeenti suñuy takk der di ay militaire euh, fipp yu Casamance si tënku ci MFDC dañu leen tëyandi jàpp leen otage loolee nag ngir ñooñee euh, ñu bañ leen a faagagal jàppale ne kon ministère bi ñu dénk wàllu l'armée bi dañu génn bataaxal sàkku ci askan wi mboolem vidéo wala nag ay information yu nga xam ne dañu ko am jëm ci lu nu mel ngalawaay nañu ko té te kooku nag génn siwal ko jàppal nii Euh, loolee mën na andi ay gàllankoor ci liggéey ba ñuy def ngir mën a jotaa sunu juróom-ñeenti takk der yooyu te kookee ka def jàppale ni yoon dana dal ci kawam euh, ci article euh, soixante bi ñu ànd seex Younousa Baldé ci ay leeral. dafa mel ni ministère bu yor lépp lu nekk forces armées kontaanuñu dara ci traitement bu ñu def ci otage soxol juróom-ñeenti soldaar yu ñu jàpp waral service yu ministère bu maître Sidiki Kaba di fàttali nit ñi lépp lu nekk disposition aajo ci protection secret maanaam aar secret mu di loo xam ne mboolem citoyen sénégalais la concerné moo xam nga nekk civil walla nga nekk militaire wala sax nga nekk ku jóge bitim réew te di dundee fii ci mim réew ministère des forces armées di xam ne nii rek code pénal bu Sénégal moo sanctionné bépp crime wala délit laale ci kaaraange réew mi rawatina ci article 64 bu addu ci wàllu woowee ministère ñeel forces armées di sàkku ci nit ñi di sàkku ci ñëpp rawatina ci ñu yëngu ci tasum xibaar ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bañ a joxe xibaar yoo xam ne mën na remettre en cause kaaraange réew mii taskatu xibaar la ba noppi doon xeltukat moom Babacar Domingo Mané nee na loolee sax lu wér la am na yenn xibaar yoo xam ne waruñu ko génne euh, donte nag euh, loolee bés bu génnee mën na indi ak njombe waaye terew na taskatu xibaar yi faw ñu def seen liggéey moom noonee la gisee moom directeur de publication bu mondeafrique.com Bakary Domingo Mané kàddoom ak Younousa Baldé attitude bu mu war a am mooy citoyen moom tamit na participer disons à la protection des populations maanaam bañ a diffuser information boo xam ne daal euh, très dangereuse n'est-ce pour la la nest pas des populations parce que su fekkee yow da nga information boo xam ne saper le moral des troupes sur place loolu tamit ou bien joxe information boo ça peut mettre l'ennemi sur la bonne piste euh, combattre nest

xibaaru tisbaar yi ci Sen TV bokk na ci euh, commission bu euh, commission départementale bi nga xam ne moo ngalloo wàllum recensement vote yi ñu ngay tàmbalee génne résultat euh, provisoire yi waaye faw ñaandi andi ay leeral nag ndax nag si di am nañu juróomi fan ñoom ñi nga xam ne d'accord ñu ci résultat provisoire yi ñu génne ngir nag mën a def ab recours sa cour d'appel bu fekkee nag élection départementale bi la waaye bu fekkee nag li nga xam ne mooy élection communale yi am nañu juróom-ñetti fan bu ñu ci Mamadou Seck xelam dafa màcc jëm ci wàllum élection waxtaan ak ah, Nanko Bakayoko commission départementale yi sàlloo si wala résultat yi ginnaaw seenub liggéey tàmbali nañoo génnee lu tukkee ci élection locale yi ñu amaloon ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu ne ginnaaw publication yi nag képp koo xam ne day ñaxtu am na ay yoon yu mu war a jaar ngir def recours ci app bi moo xam élection départementale wala élection municipale bu dee élection yi ñeel département yi wala will yi képp ko àndul ci résultat yi am nga juróomi fan ngir dugal recours ci cour d'appel bi ëmb diwaan bi bu ñu doyloo Mamadou juróom-ñetti fan la bu dee élection yi ñeel communes yi bu ñu doyloo expert électoral bi ci ñaari cas yëpp cour d'appel am na benn jàpp ñetti weer ngir càmbar recours yi siiwal dogalu atteem bu ñu doyloo ba tey Mamadou sekk bi xamle ne recours yooyee nag lu mooy acteur politique yi ubbil nañu ko mbooleem citoyen boo xam ne àndoo ci ay résultats yoo xam ne commission départementale recensement yi ñoo ko siiwal cour d'appel ndax xam ngeen ne kon am na benn weer jàpp ñett ngir nag mboolem candidat wala list bu taxaw ngir ne nanguwul ci résultat yi mu daal di vidé boobu le dossier loole nag moo di délai bu nga xam ne législateur bu euh, daf ko joxe jëm ci contentieux bu mën a am ci euh, génn résultat provisoire yi du sekk mooy ni xam xamle expert électoral la ay kàddu la ba tey yu mu dénk nanga ko bakka yëg ko contentieux historiquement booy jàng taarixu Sénégal ci ñu jëm ci élection hmm. contentieux mësul a bari mësta bari waaye nag législateur bi moom day prévoir rek loo xam ne lii lu ñàkk mu ñëw te boo prévoirul ba mën a am euh, xàll yoon wu lay may nga nekk à l'aise ci traité contentieux bi du baax loolu moo tax xëy na ñu dugal ko entre un et trois mois parce que nag lu toll ci ñetti junniy liste lañ déposé woon te mën nañu prévoir lu ni toll ci recours moo tax ñu aménager traiter le contentieux. ñu àddu jëmale ci euh, commission départementale de recensement bu vote bu euh, diwaanu Kaolack foofee dëggal nañu kon Serigne Boub euh, moom moo jël commune bu Kaolack ndax nag coalition ànd nawle am nañu lu toll ci trente cinq mille cinquante quatre ci ay voix mu mel ni nag treize mille neuf cent vingt huit la waa Benno Bokk Yaakaar am jëm ci nag département bi coalition présidentielle bi nee nañu quarante neuf mille quatre cent quatre vingt seize ci ay voix la am ànd nawle daal am et un kon ñoo jël ndam li. patron bu Senelec Pape Mademba bi tey ñu bëri yaakaaroon ne moo jël conseil départemental ba dafa mujjee nërmeelu te nag nee na moom àndul benn yoon ci résultat yooyu nga xam ne génn nañu ko Alioune Kane ma ngoog Alioune Kane sa diwaanu euh, Kaolack moom moo euh, dikkaat ci euh, commission départementale ba nga xam ne moo nga la wàllum recensement vote yi foofee dëggal na ne kon Serigne Boub moo am ndam li ci commune ba ndax nag la ñu génne ni moo di ànd nawle am na fanweer yi junni ak juróom yu toftal juróom fukk ak ñeent ci ay voix waa Benno Bokk Yaakaar am fukki junni ak ñett yu toftal juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay voix jëm nag ci conseil départemental ba waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ñeent fukki junni juróom-ñeent yu toftal juróom benn ci ay voix waa ànd nawle ñëw jiitu leen am juróom fukki euh, euh, junni ak benn ci ay voix yu toftal ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar kon nag euh, njiital Sénélec bii di Pape Demba Bitèye moom ci bopp dañoo jàpp ne moo jiite conseil départemental ak jënd ndam li kon nag du noonee dañu ko gagné ba sax moom sax nee na àndul benn yoon ci résultat provisoire yi génne Alioune Kane sa diwaanu Kaolack xamante ne commission départementale de recensement des votes génne na ko jox ndam li nag ci commune bi Serigne Boub jël département bi jox ko coalition ànd nawle ñoom daal nee nañ d'accorduñ ci te sax dinañ def recours ngir daal jëlaat ndam li. moom moo choisir Pape Mademba Bitèye. Pape Mademba Bitèye président du conseil départemental. te li bi nga xamante ne moom lañ joxe ak li nga xamante ne moom la suñu PV yi joxe dafa safaano uute parce que ñun li ñu suñu PV yi jox mooy am nañ noonu quarante cinq mille ñu am ñu am ñu ñu am quarante sept mille loolu la suñu ci joxe te itam maanaam Kaolack douze quatorze communes yëpp Kaolack ak Koweïl lañ ci ñàkk yi ci yëpp dañ ko gagné. ñoom nag nee nañ duñu nangu benn yoon ñu fokkarti victoire bi ci wàllu département bi naam nangu nañ ne commune bi ñàkk nañ ko waaye ay rëq-rëq yu bari am na ci seeni kàddu ba loolu sax moo waral ma Mademba bi tey ñàkk département bi. ñu dem euh, sa Bafou Sam fekk fa Soxna Fall sunu euh, gaynde yi nekk ci wàccaay li ani lan moo sa yees gannaaw ba mu la nuyoo Soxna Fall. lay jaajëfal tamit di wax ci ay xibaar yi nga xam ne moo am fii ci Bafoussam lu daal di tënku ci gaynde yu Sénégal yi dinañ tàgg tey jile ci ngoon li ñu mën a jàpp rek mooy démb docteur Fadio dalal na xel yi Sadio Mané ndaxte eh, ñi ngi dégg ay lam-lamee ci protocole FIFA bi waaye ñu leen di leeral rek loolu day dépendre ci li nga xam ne mooy résultat yi moom la génnee ci examen yi te dalal na xel yi Sadio Mané démb dafa reposé wu ñu ngi am yaakaar gis ko tey mu daal di eh, yi ñaareelu tàggatoom ñu ngi koy xaaraat naka tey jile mu daal di rek eh, mën a xëy na bokk ci quart de finale yi ñuy waajal quart de finale yooyu nag Sénégal ñu fàttali leen ni Guinée équatoriale la war a daal di dajel boo xam ne dañ ko war ci kanamu Guinée équatoriale match yi comme ni ko dooree ndox teel ak léegi Sénégal bàyyiwul benn yoon dara mu négligé ko équipe yëpp la bàyyi xel moo tax match bu métti ñu ngi leen xaar yeneen affiche nii la war a tëddee naka sax dañ ko doon Cameroun pays hôte day daje ak Gambie ci ay xibaar Gambie amuñu benn cas Covid euh, moom la ñu xamle naka tey jilee Burkina Faso ak Tunisie lay doon choc wala dox ci diggante Égypte ak Maroc. Sénégal ak Guinée équatoriale kon loolee mooy li nga xam ne mooy affiche quart de finale yi ci Coupe d'Afrique Nations bi kon liggéey bi Mame Mbaye dañu koy wéyal li solo rek mooy Sénégal mooy équipe bi nga xam ne ba fi encaissé bi loolu mën a rassuré ngir compétition waaye attaque bi tam gis nañ match bi passé contre Cap Vert commencé yeewu dugal ñaari but ak benn bi ñu jotoon a dugal phase de groupe muy ñett ñuy xaarandi kon Sénégal nan ban Guinée équatoriale mi nga soxna Fall liggéey ba am solo lay def foofee sa bopp sama équipe ba mu fa euh, ba ñu fayebal Sen TV ak la tribune Pape Moussa ak nag saa jàbbi bu ko jaajëfal nañ la ñu jaar si pàcc mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen a kaay xëy fësal lay doon ndax Mantoulaye ci bundoo golo bay baabu ca Médina ak ca diwaanu Tëngéej tribune yéene kaay ne ma local 2022 laa lay tegal ni ay menace nag moo am ci ndam li nga xam ni gëm sa bopp am na ko ci ndakaaru gii yéene kaayub dee média bi ne ma ca Médina leer na ni Bamba faal moo am ndam daal di daan Cheikh Ba waaye nag ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir wëlbati victoire ba ndam la nag ñu bëgg koo jébbal Cheikh Ba gëm sa bopp nay du fi amee gaa yu bugaan géy dan yi ne diwaanu Tëngéej ji looloo fa nar a am sa Rufisque Nord am na ñaari bureau de vote yoo dañ leen fas yéene sànk annulé wot ba foofee ngir jébbal nag ndam la la Madior Fall laaj bi samp te 24 heures yéene kaay samp ko mooy ndax Macky Sall nag pexeem du éliminer nag Bougane Gueye Dany Sud Quotidien mel ni ku naan kon opposition bi de ak fi réew mi toll barigo ci mbartal la buux mu dem ñàkk puus mu dem seen yaram tàng na moo taxit may ñu Macky sàll dara ña ngay xëccoog moom nag fa mu gën a di ko yàq naka tembe ci jafe-jafey askan wi jaaree ko ci politique am waaye tam ci dundin ak ñongalu askan wi libération yéene kaay ne ma commune bu Touba moom la am mar day taali bulletin blanc yi am ndam fanweer ak juróom-ñeenti junni ak lu mooy bulletin blanc fukki junni ak lu teg daal di woteel Abdou Lahad Ka Serigne Fallou Mbacké ci turbine yéene kaay ne Abdou Lahad gis na lii nga xam ne def nañ ko ko ci diwaaru Touba gaayaa ko bëggul direct news ne lu ci am Louga moom ne ñu Moustapha Diop ñu bëgg Serigne Mbuub diwaanu Kaolack tànn ko laas na ci diwaanu Pikine Abdoulaye Timbo moo fa am ndam daal di daanu gaayu wallu bi 24 heures yéene kaay mel ni ku naan ko juumoo ndax na coalition wallu am na ndam ci diwaanu Pikine donte nag boobule coalition amoon nay jafe-jafe ci élection locale yi la waral na nag du lenn lu dul parti démocratique sénégalais seen cëggal guy la ñu ak Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye Abdoulaye dugalul loxoom ci les élections bokk gis-gis AG ak président bu jot na daal di bàyyi PDS dem defi seen bopp le témoin yéene kaay parti démocratique sénégalais day dafa deltu ginnaaw te loolu dafa leer ci élection locale yi la gën a fës beneenu jàngat l'exclusive yéene kaay ma mooy président Macky Sall ak ak juróom fukk ki gaayam ñoo ca am ndam fanweer ak juróom-ñeenti département Macky Sall jël ko ci ñeent fukk ak juróom benn bu doon élection présidentielle la l'exclusive yéene kaay ne ma Macky Sall mooy jàll ci wërgal bu njëkk ba bu doon nag élection ay député la moom mooy am la ëpp ci ay député yéene kaay bi ne ma ëllëgu Macky Sall mi ngi ciy loxoom ba tey de l'enquête quotidien mel ni ko sampub laaj ne ko bu dee ëllëgam mi ngi ci loxoom lu tax président Macky Sall di kutti bopp mënta ñàkk waaje dina daggi bopp ni ki démb xamal na ay jëwrinam moom Macky Sall ne leen premier ministre bi dina ñëw du yàgg xamal leen ni ku ci nekk lan la dénk gaawal def ko wane résultat gaaw mbaadu dañuy able lu ci mënti am l'enquête quotidienne ma Macky Sall mbir mi la bëgg tëye ci loxoom fas yéene nag suul yeewi askan wi kan mooy nekk premier ministre ci nguuru Macky Sall bi le quotidien le quotidien ne taaxir lu leen de ndax Macky Sall day jël temps moom gannaaw juróom-ñetti fan ci weeru février ci la Macky Sall di xamle na kan mooy nekk premier ministre Dakar Times ne Macky Sall dafa daanu ci élection locale yi mooy dëgg buñ ko ko waxee ko ko waxul loolu mooy dëgg te dara ko président Macky Sall nag lu dul diwaanu Mbour te Mamou Saleh defoon ko xam leen ni bu président Macky Sall ñàkkee élection yi jarul nag muy wutati dara ci réew mi waaye bu amoon ndam mënoon naa wuti ñetteel bi mandat ndam loolee leen fa yéene kaay ne amu ko de moo tax muy laaj nag ndax président maki Sall njeexu nguuram tàmbaliwul Macky Sall nag fi ëpp solo ci réewum Sénégal loolee la ñàkk moo coalition mu di Ndakaaru Sigicoor Kaolack Tiwaawan Mbàkke Jurbel Yoof ak Touba gox yi nga xam ni moo gën rëy ci Sénégal gox ki nañu président Macky Sall ëttu këru diine yi dal président Abdoulaye Wade 2009 moo yor président Macky Sall bu nee day dabuwaat it l'info yéene kaay ne dabu gi day du yomb ci président Macky tribune yéene kaay ne ma Birahim Seck bu forum civil ma ngay wax maire yi falu yees ne leen wax amul dara amul liggéey rek source aane ma booba Racine Talla day ma ngay xuppu Ahmed Aïdara ma ngi koy menacé ci diwaanu Géejawaay ne ko dinañ la wan jaxaat na ma duñ la may dara critique yéene kaay ne ñan wan jaxaat na ma kay moom moo di takk der réewum Sénégal yi ca Kapa ca Gambie foofee lañ leen tegal ndëgg sërëx Salif Sadio yi nag liñ leen tere gori garab loolu moo leen fatt ba ñu dal ci kaw suñu takk der yi en tout cas ñaar ci suñuy jàmbaar faatu nañ ci juróom ñeent ci suñuy jàmbaar ñu téye leen ba tey laaj ba samp mooy lan moo tax waa Gàmbi seetaan ba attaque boobee am Le Soleil yéen kaay ne ndongo yi day ñu ngi ci njàqare ak tiit grève yi nga xam ne dañu koo dëkkee ak ñoo